Mambay Ndiaye ay ca bàkk ba jib na de yéen kaay yu xëyandoo sa mu di faatuk étudiant bii di Fallou Sène seen université bu Ndar la ni une bavure de trop Birima si yéen kaay bi jël xalimaam samp ab laaj nee gannaaw Balla Gaye 2001 Mamadou Diop 2011 Bassirou Faye 2014 Fallou mii dama ne ani kan moo topp ci liste bi nag ani ban étudiant moo war a topp si limuk étudiant yi nga xam ne takkadeer ñoo leen war a faat ndax neexul ba neex lii kat ak tayif Malika tuddee Malick Gakou feelu ko tawet ga nak ngal la way ka fat Fallou sen mi nanu ko wax ndax lu ëpp tuuru mu melni ku koy tontu dana leer nak la Macky Sall du sedd ben yon ab loxo ka sox bal ba Fallou l'observateur ni. étudiant la woon nekon deuxième année lettres moderne. ay durum sa Jurbel xuus nañu sig sa ngéem seen doom bal ko sox mu daanu colonel Pape souleyman Cissé commandant légion nord bu gendarmerie nee so soo bal bi dafa commandant d'unité débat dafa bëggoon rek limiter dégâts ya dàq xalé yi ngir ñu dama ne lii kat mooy saafara gu mujjee doon ak jàngoro loolee moo metti étudiant yu Cheikh Anta Diop ñoom it ñu génn si tali bi doon sa kon rek jàmmaarloo takkadeer ya lu mu gàtt-gàtt ñetti say oto taal nañu ko fa réew mi quotidien nii yokkal ndax sa ndar taal nañu fa benn bus kër maritaw ñu caxat-caxatee ko étudiant yu Cheikh Anta ak yu Bambey jàppalee ne nii rek la ñu tontoo takkadeer yi waaye it nii rek la ñu feeloo étudiant yu Ndar sa goxu Mam Kumba la mu gàtt-gàtt de bilang ba diis na kenn moo ca faatu muy Fallou Sène ñaar fukk jël say gaañu-gaañu libération ni Fallou Sène étudiant la woon na benn doom te la tax mu faatu libération nee na fanweeri dërëm képp l'enquête ni un mort de trop te bi la yon nak gu nekk pataar gi ci bopam lañu faat loolee moo politique yi ne mbir yi nag mu ngay bëgg a jéggi dayo te dafa wara dak PDS ci Sud Quotidien nee ñu wax ji wax ji moy président Macky Sall na tekki ndombal tankam na abalé démissionné acte bu Abdoul Mbaye grand parti bu Malick Gakou FSDB ju Cheikh Bamba Dièye ñetti doom bi penn naar yi ñom seen bëgg-bëgg mo di rek yoon def sab liggéeyam waa Radox waa Amnesty nee ñu nak wax ji ci bopam mu ngay bëgg bari saa su ne même discours que la lumière soit faite enquête enquête bi nañu ko ubbi lii ci boppam mooy fi war a jeex te lëf lii nag li ci war moo di rek ñu bisab l'enquête indépendante le quotidien ni jëwriñ bi ñu dénk takkadeer yi Augustin Tine étudiants yi la jàmbaaramuk cuuma de nee na yi si boppam ñoo song gendarme yi topp leen ba ñu sës vox populi nee la koy firndeel moo di ñaar fukk ñoo jëlee gaañu-gaañu si jàmmarloo gi waaye nag fukk juróom-ñett ya ñoom ñëpp dañu di ay takkadeer waaye génti tubaab ah kay waaw bëgg dugg resto te doo dagg waa tamit ku sa koppar tëw a génne nooy daggee ticket loolee la étudiants yi kon doon ñaxtu fàllu seet daal di saa mujjee faatu kurus ak ah, rectorat ba ñu daal leen def doom vox populi ni kër mari taw ñaan si boppam dañu ko caxat-caxatee loolee la laas nag dëggal ba noppi yokk sa kon kàddu yu jërum ñu dénk wàllum l'armée bi nee na ba jiite woon opération ba dafa demoon ba sës nag dos au mur demoon ba xam ne kon sax ay élément am seen bakkan mi ngi woon si xottu gerte looloo rek tax ñu doxalee kon lu ni mel waaye nag saes nee na doxalin ci laas jël nañu kon ñaari fan banque sa seen i yoxo le soleil nee na jaru ko woon ndax njiitu dem président Macky Sall jël na dogal sàkku na nag ngir nag ñu bisaab l'enquête su ko defee nag mbir yi leer ñu teg loxo kat sox bal ba mu ngook lii la sàll ngaari wax kon ma ne di daje si yéen a kaay jaa ngeen jëf. Ce programme vous a aidé.